Mano Mbeng bu mag waaw yor waañu uh, kër Soxna su Mbàkke Fàllu uh-huh. waañu ñu tuddee ko waañu maam aw Bousso depuis quinze ans maa ngi yor waañ bi uh-huh. waaw waañ bi man biñ may teete samay mag ñoo ma teete ak samay jawriñ ba jox ma ko di 2005 defe naa 2016 2005 2006 lañ ma ko jox boobu laa ko yor ba tey jii ànd ak ay soxna ak samay waajur yoo nga xam ni ku ci mel ni yaay Aram Thiam maam Cissé Gueye ak euh, Ndiaye Wade ak Cekk Cissé ñoom ñu ñëw jàppale ma euh, ak ñoom Ndeye ga jagaak ñëpp ñoo nga xam ni wax dëgg yàlla këri diine yañ féete yëpp waa ñu mag lañ fa yor ñu ñëw accompagnement depuis 15 ans yi ba sunu borom dogal ma ci am ndam à tout à tout le temps. moni bi moom mën naa la wax amul moni parce que euh, màggal daa doon loo nga xam ne si ne. da koy xam mais boo ko jéemee def moo ni dangay da ngay juum waaw waaye wax dëgg yàlla maîtriser nañ ko à 100 pour cent daal. noo gérer waañ yombut waañ moom kala ko seereel sa biir kër sax lii nit ñi di wax rek maanaam saa soo lekkee ba suur rek war ngaa gërëm ko ko togg ndax liñ ci daj metti na lool defe naa ni bërki dem ba léegi une heure deux heures la ñuy quitté fii wax dëgg yàlla metti na lool ñoo ngi leen di jaajëfal ñoom ñu nekk si waañ wi yëpp. taal nañ fukki mbana ci añ bi euh, incha allah reer danañ taal juróom-ñeenti mbana yi. Euh, pour jour màggal bi mais avant jour màggal bi euh, bu ñu xëyee danañ taal juróomi mbana añ ngoon gi ñu taal huit mbana reer. bu dee gan ñi ma leen wax dal leen ak jàmm euh, màggal gi seen màggal la bisub Cheikh Mamadou Fadal nag lu si waaye def rek pertoo ko ñoo ngi leen di wax daal ñu dal ak jàmm te it incha allah képp koo nga xam ne si yaa ngi si dal am nañ commission boo nga xam ni danañ la fa fekk. lépp lu war si yow muy ndox ak lekk lépp lu man doon danañ la ko jox ba mat sëkk. waaw soxna Ndiaye Diagne soppee soxna sëñ Fall waañu soxna Asou Mbacke waaw lu mu gàtt gàtt ñaar fukk ak juróom dugg nañ ci ren man eh, ndax ki ma ci taaw la woon sëyi na ba am doom kon mel na ni mi nga bëgg a yàgg ñu ànd koog suñu jëwriñ yi allah ñu doon ñu am pëseef di ñu neex a liggéeyal ñu ñaan soxna Asou Mbacke yàgg fi lool te wér. ñu yàgg ci ginnaawam di ko liggéeyal te suñ borom defal ñu xéewal yu bari yuñ mën a sonn ci waañ waaw mel na ne jafe na waaye kuy liggéeyal sëñ Fall dara du jafe ci yow ndax buñ fi duggee sëñ Fall lañ fi duggee buñ génnee sëñ Fall lañ fiy génne moo tax lépp yomb ci ñun waaw wàllu togg bi ci jigéen ñi waaw mel na ni jigéen ñi nag euh, barki démb ba tey ñu ngi fi bu dee góor ñi moom jiitu nañ fi lool ndax ñoom ñooy lépp ñun dañoo ne seen ginnaaw rek démb ba tey moom jigéen ñaa ngi fi ba une di xolli ak a defar bu ñu xëyee fi la ñuy nekk te fi jógee deux heures a jot te buñ jógee fii 2 heures baas ba la ñuy fanaani ba 6 heures du kon ñii moom jàmbaar lañ waaw mel na ni moom daa bari ay waañ nag ndax koñ bi dina bari fu muy taale fu dul ñun waaye buñ dee wax wàllu waañu mag wi nag ñun ñoo tax ñu naan waañu mag waaye ay waañ la bari le ndax koñ bi fu na fa waañ waaye bu ñuy wax bu mag bi daal ñun ñooy ndey daayira yi daal lu mu gàtt gàtt moom fukki yi moom day topp waaye du wàññeeku waaw lu mu gàtt gàtt rek waaw lépp ceeb lay doon waaye nag eh, am na ñuy laax bi saab ceeb ga te bokkuñu ceeb bi waalo caagri it am na ñu ko yor mu ngay séddale te bokku ci mu mel ne xéewali moom fu ne lay jóge tàngal weet mu ngi mel ne daanaka dara méttu ci ñun ñun lépp bànneex la ci ñun ndax biñ jógee suñ kër sëñ Fall lañ fekk si buñ fi jógeet sëñ Fall lañ fi bàyyi moo tax bépp coono buñ fi gis baa jafe-jafe lépp dañ ko def nga neel sëñ ñaax leen ñu gën a jàpp rek te xam ne liggéey sëñ Fall yombut bëgg cee bokk taxu cee bokk sëñ Fall la ci boole nga mën cee bokk kon na ñoo ngi sant borom bam ñu ci boolee ñuy ñaanal mbooloom daayira mépp nag suñ borom may leen fan wu gudd may leen xéewal wu ñu mën a def ci waañ ba kenn ku ne rek mën koo seere ba dootuñu ñu soxna si dara